waaw defe naa deuil national bi maintenant c'est le peuple qui a décrété moo décrété deuil national parce que c'est véritablement état moom dafa am dafa am ay normes ba état ba léegi sax waxagul ñaata ñaata mort la donc ñun dañuy calcul nit ñi def rek ñoo jàpp ne am na 400 500 man jàpp naa ne c'est ëpp na loolu donc bu peuple décrété deuil national dañ koy saluer déjà dañu saluer initiative bi bu jógee ci réseaux sociaux yi parce que maintenant réseaux sociaux yi presque jeunes yëpp ci te jeunes yooyu Euh, degré de coono bu nit ñi daj ak métti bu métti bi am amaa ne moo tax ñoom ñu jël initiative décréter deuil national lu ñuy saluer bu baax a baax baax mais nag on comprend aussi que l' nekkagul ci dynamique décréter deuil national parce que peut-être que reconnaître gul chiffre yi nga xam ne moom la ñun moom la ñuy wax ne 480 mois wala 280 mois même si nag état bi dafa war def mu ne enquête yu normal parce que état am na capacité. xam ñaata ñoo dee si si si géej gi bu defee enquête sur le plan local nii rek dem gox bu nekk rek mën na supposé nii fu nekk am na 100 fii am na 200 ba ñu mën a xam ñaata moor ñoo ci am pour agir en conséquence parce que man jàpp naa ni bu ñu nee coronavirus 300 et quelques morts coronavirus mobilisé état bi pendant 6 à 7 mois chaque jour ñu ne ñu tant de morts tant de tant war nañ lii loolu tam bu ñu nee 480 morts ci day ci ci ci mbënd bi ci di euh, immigration clandestine bi laaj na même même ñu toloolee même kii parce que boobu mu ëpp sax fu mu ne nii donc état war na réagir dem defi les enquêtes nécessaires xam ñaata ñoo dee pour pour mu wax pour pour mu informer peuple bi mais nag li c'est une très très bonne initiative éveil de conscience la nit ñi xam ni y a quelque chose qui se passe qui très très grave les jeunes yi xam ne ñooy le bras fort de ñoo war a tabax dëkk bi ñu ngi dee ndànk-ndànk di dem di génn kii bi di dëkk bi dee te loolu nag moom comme tey c'est maa ngi ne je suis noir pour marquer l'événement comme comme tout le monde maa ngi ci réseaux sociaux yi ci laa ko yëgee ci laa ko gisee. waaw dama ne ségrégation parce que chaque mort compte quoi chaque mort important nit moom nit kese la. te nag nit nag day am ndombal tànk boo xam ne dina tax ba fi ngay tollu ak man bi nga xam ne man fu ma toll bokkul amaana am na kilifa boo xam ne bu wàccee liggéey moom mooy ëpp doole sax

surtout les réseaux sociaux nit ñi am nañu droit conscience xam ne y a quelque chose qui am na lu leen metti am nañ dëy bu leen metti ensemble ñu organiser wu ne tey dañ ko def dëy ñaanal gars yi ñaanal néew yi et puis loolu mooy yoon sax déjà mais du ma wax ségrégation du ma du ma kii état moom mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci yëfam ñun ñun citoyen nañ nekk suñu yëf. état dama koy wax chaque jour état warul rus rejoindre une demande populaire day bi nii boo xoolee si réseaux sociaux yi si réseaux sociaux yi rek bi véritablement taa à dire dee ci géej gi amaana ñun ñu nekk ci réseaux ñu ngi koy sentir mais boo duggee ci population bi nii ils le sentent pas véritablement donc euh, état bi même bu nekkee réseaux sociaux yi la yam demande sociale la demande boo xam ne état waru am waru rus waru l'état ne doit pas avoir honte ne rejoindre une demande social même bu nekkul woon décret national au moins mënoon nañ génn wax ci wala ñoom seen Twitter seen Facebook ñu wax ci def stag yi wane ni ils sont gis nañ ko yëg nañ ko wane ni aussi nit ñi nit ñi am na leen metti donc lu état waru état waru dus quoi ñun benn problème la ñu am te benn kilifa moo ñu ko wax fan yi rek mun nañu suñu suñu nguur dañ nekk en déphasage par rapport le peuple mu ne bu ñu dindee tapis rouge ak gyrophare rek dañ mën dellu si parce que loolu moo leen loo boo xoolee tout temps tout ce qui passe dans le pays les gouvernants sont en déphasage par rapport au peuple c'est-à-dire ñun réalité yi ñuy dund boo ak ñoom réalité yi ñuy dund te ñoom mënuñu comprendre ñun réalité la ñuy dund un jeune man par exemple peut-être aw ma sax passeport je n'ai aucune ambition pour génn dëkk bi lu ma lu ma bëgg fii bëgg amee mais aw ma sax critiquer beneen jeune bi nga xam ne ni am na lu muy dund këram lu koy lu koy tax bu mu poussé mu dem mu dem voyager donc loolu kenn mënul kenn mënul ŋàññe kenn ne dama bëgg jël gaal gi dem parce que kuy dem jël gaal di dem demoo pour dee ah kuy jóg rek da dem ne man damay dem pour tekki tekki boobu boo mënul am réew mi te véritablement ce pays ci nit ñi rek xam ne nit ñi sonn nañ mais du plus bas niveau au plus haut niveau du du local au au central ñiy gouverner ce pays là xamuñu nit ñi lu ñuy dund. boo ñëwee ci mairie ngay commencé les maires de commune commune xamuñu lu seen dëkk di dund mu yéeg bañ état bi donc déphasage moo am ba nga xam ne ba ñu def de national il ne peut pas le sentir seen doom yi nekkuñu fi seen doom yi xam na mu koy wax rek fu muy nii tout le monde ñëpp bëgg voyage yow da am moyen nga dem fayal sa doom mu ut mu am dem yow amoo moyen sa doom jël gaal c'est seulement ça la différence mais dans ce pays là koo yee fëgg ko ne ko kaay da ngay voyager mu topp la parce que ñëpp gis nañ ni dëkk bi pour nga dekk fi moom c'est énormément de problèmes c'est mën nga sax ne c'est impossible il faut avoir un bras long wala nga am nijaay bu nekk nijaay wala dara wala nga am sa ku la jàpp yóbbu la placé la te loolu nag ñëpp amuñu ko ñoom am nañ ko seen doom yi ils sont bien placés ils sont bien organisés ñu ngi leen <laughs> bëgg dem voyage dem jël jël avion gaal lañu mën a jël mais nag ils sont ambitieux autant que les autres dañ bëgg réussir tekki rek donc loolu nit ñi war a comprendre que bu ñu ngaañu kenn ne nit dafay dem pour xaru ji les gens vont pour kenn du jug ne damay dem xaru ji ku jël gaal gi rek da nga am yàqin ne sama gaal dina yegg ba ma ba ma réussir. waaw di leen wax si jël ndigaale parce que metti na trop véritablement am doom bu am 15 ans wala nga am doom bu am 20 ans ñu joxe xëy ne la mu ngi ci géej gi gisoo koor gi gisoo kooram xamoo ndax yaa ngi dute parce que tant que suuloo rek Sénégal moom tant que suuloo rek yaa ngi dutee ndax mu ngi dund wala dee na même boo dëjee sax yaa ngi dund loolu c'est très très difficile ku nekk na ko santé ci ñu may ñu yàlla may leen xolu muñ ba loolu ñu dépassé ko jeunes yi nag moom je crois que l'ambition am tekki ñëpp ñëpp am ñëpp am nañ ko mais nag euh, nañu jéem a toog xool lu ñuy lu ñuy lu ñuy defaree réew mi waaw nañu xool nañu jéem a xool lu ñu defaree réew mi te ndax c'est possible réew mi c'est possible ñu defar ko quoi nañ nañ jàpp rek jéem a defar réew mi te bi nag <laughs> na gars yi wax ne il faut ouvrir les kii ba nga xam ne ku bëgg a voyager bu ñu bëggoon mënoon voyager dem di ñëw problème du am parce que man mii su ma mënoon dem France chaque jour ñëw du ma demee France damay ñëw du ma fa toog am amu ñun amuñu benn solo ci dem France wala dem feneen ak wala dem feneen mais possible boobu see ñëw donc euh, xam naa ñëpp mën nañu am désespéré mais jaru ko nañ garder espoir si nañ gëm suñu réew mi xam ni mën nañ ko defar mën ko defar te ñu ñoo ko defar suñu bopp pas politiciens